Audio Jungle. Salah Salah nax muy jooy xam nga sama doom bi Salah Salah rek la xam ci ci Zori day jékki ñëw na ma papa Salah mu ngi jooy ma ne ko lu raw jooy lay def bàyyi ba Sadio Mané fekk ko ci ci ci Liverpool boobu mais macha allah ñu ngi gërëm tamit euh, Medina TV wax dëgg yàlla donc seen la bu bu extraordinaire gis nañu performance yi muy def moom tamit donc euh, yamul ci commune bi. donc mu ngi dem feneen xam naa dinañ dinañ def ak projet du yàgg n'est-ce pas ah. non Saliou xam nga bokkut ak ñuy leew ñi ah, xam nga équipe bi am na ñuy leew dëgg-dëgg xam nga ni xam nga waa waa ji bëggumaa tudd turam ndax tur bee mag nañ ko wax sax mooy boroom sàcc gerte yi bu leen wax tur bi waaye bàyyi la ndax gars yi dinañ ko xam xam nga marché boobu leew di sàcc gerte jàmbur boo ko kii daa yaru amul problème li muy def ci match bi la koy def ba pare fair play waaw di ko ñaanal Saliou ah, di ñaanal équipe bi yëpp yàlla na yàlla na ndam li gën a yokk incha allah ren gars yi nañu.